damay euh, jëkkee wax ne ñu ngi dañu toll si tiis ndaxte xam nañ ne Thiès tey euh, kilifa gu mag aussi génne na cees muy Serigne euh, Khalifa Gaye nekk kilifa si oustaz Tafsir Gaye te doomam bokk si conseil maire maire nekk ko fii ñun ñëpp ñuy tiis lu loolu di miti lu loolu di ko jaale njabootam di ko jaale waa Thiès tey maire yebal ñu fi pour ñu ñëw teewal ko fi ndaxte. président Dame Diagne dafa oote presse bi dafa oo presse bi pour leeral li nga xamante ne moo fi xewoon si fan yi ñu génn ñu ne waa UNACOIS dañ dem yàq foiru benn commerçant mu oote nag pour leeral leeral boobu nag comme dafa am ay jéego yoo xam ne daf ko doxoon ak maire bi mu wax mair bu fi mënee yebal délégation pour ñu mën a teew mën a firndeel li nga xam ne moom lay wax ah loolu mu wax ñun ñu ànd si bu baax parce que dañ ko dund dañ ko fekkee euh, euh, li ñu am dégg ko fan yi ñuy wax affaire yi protocole d'accord dañuy wax ne procès verbal la woon benn réunion ñu tënk fa ay kaddu war a nag doxaat yeneen i jéego pour gën a leeral loolu parce que kaddu yi ñu fa jël dañu commerçant yi dañu wax li leen metti si organisation foire fi am mu indi du am sooxe bu muy def si seen njaay ñu ne nag li leen gënal mooy ñu fexe déggoo ak kilifa yi. ba benn far di fi am Talla la ànd si loolu eh, ànd si di ko doxal te booba sax toogaay bi ñu waroon a toog nga xam dañ koy yaatal maire yeeg ñëpp bokk si autorité administrative yi bokk si loolu sax jotagul woon tàmbali kon dañuy wax ne procès verbal la ñu ekkati wax si ay kaddu ne nañu defe nii pour mën a organiser organi euh, foire yi si biir Thiès ah loolu Talla Sylla la nekk si ah, lii nga xam ne moo xew ñoom ñu wane ne bokkuñu si ñooñu ko def dem nañ si ay kilifa jéggalu xam ne ñoom ñoo jum fa ñu ko defee man dañ ma fa oo man mii directeur bi cabinet ma dem fekk jataay ñu toog ñu wane ne dañu juum tooñ nañu ñu ngi jéggalu loolu mooy li nga xam ne lu am solo la. nit nag bu defee jëf reconnaître ne juum na baalu baalu rek moo si tegu ndaxte ka nga xamante ne tax moom lañu ñu tooñ tàll si la si boppam.

ah loolu nag bu amee ñii oote pour leeral loolu ñun dañ si kontaan ñëw pour gën a feddali li nga xamante ne mooy taxawaayu taala pour jàppale ñii nga xam ne ñooy les opérateurs économiques ñi xam ne ñoo nekk si Thiès loolu moo waral mu oote faar boobu moom taxawaayam yëpp te nekku fi te jàggulu ñëw li muy dox yëpp mooy pour njariñu Thiès dem na fi itali jàggul la ko fa yóbbu pour nan la mën a fexe ba mbalit mi kenn du ko waxati si Thiès

képp koo xam ne kii yaa ngi si dëkk bi di liggéey pour lu jëmee dëkk bi sa kanam dama lay wax ne porte maire bi daf la ko ubbil pour ngeen ñoom ngeen toggee wax ngeen bàllu